yées salam alaikum aduna senegal salam alaikum kep ku may sitane El Vision man puissance nee la sa sunen ni la koy defé di ci coxataan ci poxataan muy neex kon nee leen bërët tey dama ñew spécial ñew seet si nag waa seet si Moussa bri Bagage mu ñew wax ma li nga xam tournage am la mu wax ma num ko defé ak num ko sentir ak pourquoi tamit Moussa bri Bagage Moussa nuy na la. wa Zeyna ñu lay fay. ma ya ngi jam wa ñu ngi sant bu baaxa baax. wa ma lay fay soxna si. yaa jam ñu ngi sant bu baaxa baax. salam alaikum ma lay nuyu ku nekk sa tur sa sant. Thiat nuyu naa la. ah naa la tamit yaa ngi am jàmm. Ah, sant bu baax a baax. Ah, maa ngi sant yàlla bu baax a baax. yaa ngi am jàmm waaw ah, maa ngi sant bu baax a baax sant ku tedd rek Serigne Touba. maa ngi am jàmm bu baax a baax a baax. waaw Moussa dama lay laaj euh, maanaam ci li ngay def pourquoi nga choisir Moussa bëri bagage. bon da ngaa bëri bagage wala. waaw boo nag <laughs> bagage am na ci tuuti rek daal bëriloo ñu ko sax mais boo gisee loolu. Euh, dañoo amoon benn objectif quoi mooy que ni benn série bu ñu doon def maanaam ay sketch sax la lu ci bari day varié quoi léeg-léeg kii di génnee fii léeg ñuy génne fee c'est pour cela que ñu indi woon Moussa bëri bagage bi parce que boo xoolee sketch yi xam nga daal moo indi woon tur boobu noonu mais sama sama ma daan jógee benn tur bu ñu la classe sax ma daan jógee mais dañoo xool ba xool xam ni sketch ñu doon moo tax ñu indi woon bëri bagage bi doon ci góorgóorlu daal. waaw Penda Bar mooy tur artiste bi du slogan boo xamante ne ni bon euh, si sama gars yi la jógee xam nga rek waaw comme jëmm ji rek ni mu mel nii. waaw xaw a méngoog benn baar daal. ñu jël yow instant da ngaa méngoog ba benn baar ni moo ta nga def sa bopp. c'est-à-dire chaque instant def damay déchargé wu. <laughs> waaw <laughs> man daal damaa jommi waa El Vision ñoo xam ne ay tur yi garaaw lañ yor ay benn baar ak ay musa bëri bagage ak ay toj ko toj ko moom toj ko moom fii laa ko dégg waaw pourquoi toj ko tamit. non mais toj ko nag ko indi dafa sori. foo toj. non man fi ma toj bëri na. da ngaa toj lan la. fi ma toj bëri na. lan moo waral toj ko bi. non toj ko bi daam benn ASC e bi ñu doon zéewal. compétir waa xam nga rek gars yi defoon ay bagages rek jamono boobu si nga woy toj ko bi génnee euh, am na ku ko woy naan toj ko toj ko. woy toj ko waaw. si laa kii rek daanu xam bagage yi jàpp ma rek si laa daw mbëkkee miir bi rek sama bopp bi xar nii. nga toj ko. yooyu si la ma gars yi commencé nag woy toj ko mi mu siw. Moussa bëri bagage boo xoolee journée wetaan laa ci bëggoon a yóbbu sama ASC fu kaw fu romb njortam mais nag malheureusement mu ñëwee paa bi dafa maa mujjee détenu daal loolu la. bon kii moom mën naa ne rôle moom bëri na ay rôle quoi maanaam boo xoolee euh, nan laa ko mën a tuddee tuddee sax polyvalent quoi polyvalent polyvalent laa si tey mën naa ñëw nekk si pas. soo gérer suba la fa demee rek xam nga du nekkul comme benn baar benn baar au moom benn rôle la mais man yoruma benn rôle tey mën naa nekk pas ma nekk jeune extra extra noonu la fa demee rek. pourquoi caat li nga tuuti moom moo tax wala caat nga wala Moussa Bari Bagage moo la jox caat bi. atami deug dëgg neexul Moussa Bari Bagage ñoma def ciat parce que dama gëna nek xalé xale ñom ñu jappé ma tamit comme seen bop def ma seen dom def ma seen ciat def ma seen lepp da wax deug ya róoru mel bop ñuma jox boo ma jox damay dem ak mom man mom machallah allah ma jox rek damay dem ak mom te yalla bu ci ciat dug saison bes bi mom nako ñepp xaar ndax xamna ne li fi nara a am yëpp kañ nga dug ci ar waaw théâtre ak mom ma ngi ci depuis 2009 ba léegi mom ah yàgg na bi may am 11 ans laa nekk si aar ba nii maa sama 16 ans. bon xaw na yàgg de yàgg na depuis 2011 mën naa ne ba léegi maa ngi si aar bi de. ba léegi maa ngi ciy yëngu. 2009 ba tey maa ngi si aar bi. ba tey yaa ngi si aar bi lan ngay xaar ci aar bi kon ak lan nga siy séentu ak fan nga bëgg a egg ci aar bi ndax euh, depuis ba tey yaa ngi aar bi toj ko. non aar bi moom maa ngi séentu fu sori. aar bi daal bëgg naa toolu foo xam ne fu sore sore fi nga xam ne moom. maa fi ma fi nga xam ne fa la ñoom su ma toll ñoom Jojo tey jii bëgg naa faa toll. bon xaar xaar mën naa li ma si xaar bari na li ma si xaar bari na trop trop trop. waaw fi sama moomam yi ñëpp dem ñaan naa yàlla ba dem ba dépassé foofu noonu ak képp koo xam ne bëgg na aar bi mu ngi ciy yëngatu ñaan naa yàlla su may dem noonu àndandoo ñëpp demandoo ak sama gars yëpp daal. Euh, aar bi li ma ci xaar li ma ciy séntu saa su nekk maa ngi koy gis ndaxte suñu borom bi nga ma ci defal amaana lu kawe sama njort. te amaana tey jii su ma yaatoo ba mën a toog ak nit ñi di ko waxtaan ci aar la ndax aar moo mën a fekk yow loo xam ne ni ñëpp dañ lay sib mu dindi ko ba mu set fekk la ci milieu boo xam ne ku la fekk da lay xeeb mu jël fa teg la ne tey jii mën a toog ak borom alal ak a daraja te du tee da ngay waxtaan ak moom te loolu lépp di mën a def aar moo ko mën a def ci doomu naa lan la lan moo leen boole waaw suñu nekkin moom pour artiste moom nga nekk ak ñoom moom des fois day jafe waaw lol tamit euh, maanaam ay xol bu ñu àndee rek pour ñu liggéey day yomb te gis nga gars yi ni ñu mel nii billaahi ñi may tourné noonu xab yëpp ñu turub ay yeneen turub lañ nekk mais suñu borom moo ñu boole ñun waa Tëngéej ñu nekk benn am benn association bi naan les amis du théâtre parce que tamit ñëpp ñu yem jikko ndaxte tey ji kii ak ni muy ñëwee kii ak ni muy ñëwee moo chaque jour rek dañuy ànd ak bi bu ñu àndeek bi rek dinañ nekk si jàmm te macha ñun ñu nekk ñëpp ñoo bokk yem amul kii moo mag amul kii moo gën a nekk xale defe naan buñ toogee doo xàmmee ku mag ak ku magul. nii la ñu mus a parce que ñun ñooy liggéeyandoo te ñooy ànd loolu moo ñu may chance boobu ñii suñuy rakk lañ ñii euh, suñuy suñuy suñuy suñuy doom lañu maanaam entendre bi am suñu biir mooy maanaam suude la ak di fréquentante parce que ñun ñooy fréquentante suñu biir. xam nga léeg-léeg gars yi dañuy def sax création ñëw ci biir les di théâtre fa ay élément def création bi dem exposé ko doo xam te ni ñu troupe lan ngay wax gars yi pour ñu xaaral si deuxième saison bi nga xam ne muy daw El Vision Média. waaw El Vision Média moom moom ca kaw ca kanam mais deuxième saison moom liñ ci waaj lu rëy rëy rëy te xam ne nañ toog xaar rek xam ne waa Bari Bagage ñu ngi ñëw ak seeni feem ànd ak waa El Vision ca kaw ca kanam rek daal yaa ma gën a xam lépp day baax incha allah. ah tamit gars yi xaar leen saison bi ak bari bagage ëpp na du yomb ku ko raté daal taate nga lu bari tamit dëgg neexul. sama fans yi nag maa ngi ni wax nañ ma séntu ndax euh, bi nee riir fecc riir neex na nday jee te sa mbagg ya sama fans yi nag ñoom ñoo ma téye moo tax ma am fitu dem ba ànd ak ñoom ñëpp nañ ma xaar nag ak Air Vision. waaw deuxième saison bi dina mel ni comme ni ma ko waxee woon sànq rek dina mel ni murit buy waaj màggal. deuxième saison bi noonu la mel murit buy waaj màggal. Eh, deuxième saison bi El Vision dina mel ni njambaanu diwtiir doo comprendre de njambaanu diwtiir mosoo ko gis El Vision lay xewe maa la wax deuxième saison bari bagage bi di ngeen ci gis loolal mosul gis maa ku ko ku ko rate non xamal ne rafet nga lu rëy sa àdduna. te xam naa ren ah waay waay te da mel ni mbàccum gerte de. Eh, ren gii eh. day garaaw. kon yéen a ko gisandoo lii laa leen indi woon eh, fii nga xam ne moom moo nekk Tëngéej ñëw seet si ñi nga xam ne ñoo nekk oh, Moussa Bry Bagage di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu fan si puissance yi nga xam ne chaque jour rek dañuy toog di am mbég ak ngeen deuxième saison baa ngi ñëw si Moussa Bry Bagage bës leen foofu seen loxo ngeen abonné ngeen toog di ko xaar ak yeneen ak yeneen mu ngi ñëw eh, mama mu ngi ñëw dal seen kaw Badou tamit mu ngi ñëw ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne mu ngi daw El Vision Média kon abonné leen rek sama fan si di leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal xew. lan la lan moo xew. yéen waa Sénégal. xaar leen fii ci El Vision Média. pour la ah, deuxième saison. bëri bagaas. fii ci El Vision.